asalaamaaleykum mbokki xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës dañuy indi xët gu yaa ci lu jëm ci wàllu mbëkk bi wala bokk tukki gu ci yoon ak it la nga xamante ne moom moo ko waral jàngat lañ ca daal di def ak it taxawaay gi nga xamante ne kilifa yi politique ñoo ngi ko ciy def ci fànn boobule dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lay doon beneen euh, mbir mi ñu nar addu itam bokk na ci la nga xamante ne moom moo jëm ci coowal élection ya nekk ci Guinée fi mu ne nii kii di Cellou Dalein Diallo ak it ñu mu àndal ñoo ngi woote lii la di manifester fexe itam ne dinañ dem ca conseil constitutionnel ndaxte nag gis nañ ne kii di Alpha Condé dafa jalgati yoon dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boolee yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey këntënku leen ci ponk lu ñëw sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor amaana ndàqum ginaar waxaale sa soxla loolu yëpp dañ ko fiy tere ci 88 lay doon 628 98 98. biti réew 33 841 22 33 Aline Badara Socé moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk gaawu ñaar fukki fan ak ñeent ci weer octobre atum ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yi. ñu dooree ko ni leen ko waxee ci mbëkk mi lu jëm ci wàllu wàllub ñàkk xëyub ndaw ñi te mu sax dàkk ndóol gi ak it ñàkk politique yu ñu jëmale ci xëyub ndaw yi loole bokk na ci la nga xamante ne mooy tax gune yi saa su ne ñoom ci seen wàllu bopp ñu daal di utali waax yi ngir rek daal di dem ca biti réew boo ko fa defee ñu daal di amab la leen gënal ci seen réew ONG sans frontières gis na ne nak ñàkk doxalin ci nguur bu sell moom moo waral li ne rawatina ci wàllu napp gi na ci li nga xamante ne moom mooy andi njureef loole ba tax rek gune yi seen wàllu bopp daal di utali fële ca biti réew Boubacar Seye ñu teewlu ko ajanday Marème Ndiaye. Bassa ak Barsaq musu fee jógee ndax li ko fi jëlee euh, musu fee jóg. Euh, may rappel li ñu aussi. Euh, l'ère post-coronavirus su ñu deful nank dina marqué par une intensification de ces flux sous l'aiguillon pauvreté chômage endémique des jeunes Euh, sans oublier euh, la mauvaise gouvernance bi nga xam ni day fàttali les perspectives d'épanouissement euh, ñi nga xam ni ñoom la ñuy waxee les couches les plus vulnérables tey nag soo xoolee si phénomène Barça Barça dafa am benn jàngat la particularité flambée bi mooy dafa am beneen couche bu ci ñëwaat tey yokk ci ndax fekk yokk mbir mi mooy c'est la jeunesse Euh, des gens de la mer moom mooy nappkat yi ñoom ñi nga xam ni tey ils sont victimes euh, des politiques structurelles ak mal gouvernance bi nga xam ni tey moo laal géej gi euh, may rappeler ñu ni pratiquement la pêche industrielle dafa ñëw ba écraser la pêche artisanale ba nga xam ni ñoom ñi nga xam ni napp la ñu xam mooy seen aada mënatuñ cee dund mënatuñ cee def dara je rappelle que même la zone économique exclusive la ZE a été bradée tey loolu indi tey loolu moo yokk tey euh, cette ruée li nga xam ne mosuñu ko gis tey nit ñaa ngi génn fu ci àddina embarcation yooyu ngi génn fu nekk ci biir Sénégal pour pour pour rejoindre les côtes européennes euh, dama jàpp ni nag ni euh, c'est une humiliation de nos légendaires et valeureux pêcheurs ñi nga xam ni tey abattus par la pauvreté ak les incertitudes amuñu benn solution lu dul quitter massivement les côtes poissonneuses pour vers une migration aléatoire vers Europe lii mooy jàngat bi ci am mbëkk bi nu muy gën di yokkoo ci jamono yi le loolee gis nañ ne nag yàqte gu ñu nemmeeku ci lay génn ci géej gi Euh, nappkat yu ndaw yi amuñu beneen solution ngir rek daal di dem fa nga xamante ne moom mooy ca biti réew ndaxte nag bu ñu duggatee ci géej gi amul lenn lu ñuy daal di génne loole moom mooy njàngatu docteur Souleymane loo mi nga xamante ne nag euh, xam-xamam dafa màcc ci dundin ak nekkinu doomu aadama nee na nag li di crise sanitaire bi nag moom moo ñëw gën a yokk la nga xamante ne moom mooy euh, lii lee di gune yi ngir rek ñu daal di utali fële ca biti réew docteur Souleymane Lo ñu teewlu ko xab say li man woon situation boo xamante ni la mooy wane nii Barça wu Barça saa yoo ko déggee rek mooy nit ki amatul pexe ñàkk pexe pexe la da nga toll foo xamante ni ku amula la gën a la fa sës ngay jël te Barça wu Barça la fa sës la ci xale yu bëri bokk na ci li koy waral nit ki dafa amul xëy te dañ koo gëmloo woon ni bu fekkee ni jàng nga ba wàcc ci jàng sa diplôme bi dina tax nga am liggéey nga gis ñu yor seeni liyaasa yoo xamante ni ci école yu mag la ñuy jàngi tamit euh, même bu fekkee ni pare nañ ñu toog un an deux yoo xamante dañuy wër gisuñu dara rawatina fi ñu dëkk ci quartier yi ni ñi di leen di xool di leen teg bëtu bëggoo leen liggéey da ngeen bëgg lu yomb da ngeen dem ba nga xamante nit ki dafay fees bu feesee nag amul lenn lu dut comme ndab la rek day tuuru te tuuruwaay bi mooy jéem a xool noo xamante ni ngay def ba génn ci ak lu la ci mën a fekk nag nga jël ñu gisaat ni également ci phénomène bi li ci xaw a bees moo di mool yi nga xamante sax ñoo doon yóbbu nit ñi dañu dem ba ñoom jëm jëmi bopp ñoo nekk ay candidat ci à l'immigration loolu lan moo ko yi nga xamante ni ñoo faral Euh, napp jën bi ñu doon napp ñoom di ci suturloo dem nañ ba mësuñu gis jën ndaxte bato yi jóbbu nañu lépp ñoom i euh, ni kat li fi sës mooy ñu jéem a xooli feneen boo ci boole waale contexte bi ñu nekk di contexte corona di dafa nekk facteur boo xamante ni dafa nekk bu favorable Europe mag ñu bëri dee nañ ba nga xamante ni ñoom dinañu soxla ay ndaw ay yoo xamante ni ñoo leen di jàppale ci liggéey bi donc ñooñu ñu analyser ni moment boo xamante ni la bu ñu teelee dem du ñu nekk ñu ñu refoulé yan dénkaane ngay def euh, ngir ñu mën a daqal Barça wala wala barsak. ñu jéem a xool nu ñuy utalee ndaw yi xëy rawatina ñi nga xamante dañoo jàng ba am seen i waaye tamit euh, ñu gën a euh, jëmmal entrepreneuriat donc il faut mu am a la fois formation bi ñu mën ko combiner ak beneen structure boo xamante ni investissement la ci mbirum jumtukaay par rapport ak ndaw si ñuy jàng maintenant wàllum mool yi ñu fexe ba licence accord de pêche yi nga xamante ni état bi moo ngi koy ak ñi nga xamante ni mooy entreprise étrangère yi ñu xaw ko wàññi bu baax a baax a baax et puis tamit bàyyi xel donc ñi nga xamante ni ñoo ci dund te moo doon àdduna ne ci micro Habsa Elimane Wane mbëkk bi ak nuñ ko mën a defee ngir rek daal di génn réew mi gune yi ñoo ngi koy def rawatina ñi nga xamante ne ay nappkat lañ loole nag ñu duppee ko Barça wala Barsàq lan moo daal di tax rek gune yooye di fi bàyyi ko utali fële ca biti réew Yves Tendeng jamono ji li ñu nemmeeku moo di ne lu jëm ci wàllu mbëkk mi dafa gën a takkarnaase fii ci mim réew mënatoo toog benn ay bés te déggoo ci diwaan gi ñuy wax lu jëm ci mbirum ay ndaw yoo xam ne ni ñoo ngi doon def lu jëm ci wàllum mbëkk mi muy mbir buy gën di jéggi dayoo fii ci Ndar. dëggu métti tax bu leen leeroon ni li ñu wute Espagne am na ko fii Sénégal kon du dem Espagne du fi sax génn nekk boo demee ba lu jógee sa réew du tukki pour tekki. ak métti métti dëkk moo tax nga jóge fi di tukki. ñu ci bëri ci ñoom dañu yaakaar moo dinee dëkk bi ni mu métti moo waral lu ni mel ndaxte kat li ñu gis moo di wàllum napp gi jamono jilee liggéey ba am ci koppar lu métti la. te fii da ngay imaginer léegi exemple comme ñun ay mool lañu ñu dem géej pendant léegi huit mois wala neuf mois nekk si géej yaa ngi dégg gis nga boo ñëwee benn un mois deux mois li nga yoroon doo mu la jaar. mënoo si dara dara. ni ma nga jàngate mooy tartar rek xam nga tartaru dëkk bi xam nga métti waaye xam nga ñàkk joobeeg yi demee noonu affaire yooyu noonu. fekk koo xam ne xamul géej wala dégg na riiru clandestin rek mun da see dugg boo si duggee danga nga tere sa bakkan. yi la nappkat di yeewoo ca Guet Ndar daal di joxe seen xalaat ci lu jëm ci wàllum jafe-jafe yi la ñuy xam ne ne lu ci bëri seen i morom ya nekk ca tugal ñoo leen di xamal ne li ñu mën a am ci biti réew mën ñu ko am ci mim réew. mais li waral loolu lépp tamit ñoom ñoom ñoo lay gën a dolli cons di lay na la ñëw leen. ñëw leen ñëw leen gars yi fa teew yëpp koo si déggante lu mu laa njëkk wax mooy boo amee posé dema sa yoon. waaw am na si xamante ni mosuñu dem géej dañuy dégg Espagne rek kii diw dëgg tëgg na gaal rek ma ñëw fay sama xaalis waaw mais nu xool li ñuy duggee si yoon bi daal am na si solo torop daal. jamono yi mbirum mbëkk mi di gën di takkarnaase fii ci Ndar te mu bëri lool doomi aadama yi nga xam ne ni saa su ne ñu nekk ci te ñii di alkaati yi ak sàndarmi ñu leen di fara teg loxo ci diwaan gi.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 ca biti réew ca booba jamono Soumbédioune nappkat ya fa ñoo ngi fexee di ah di ñaax askan wa ak yëtt yee gune yi ngir rek ñu daal di wattandiku baax a baax lépp lu jëm ci wàllu tukki gu jaarut yoon ñoom nag gis nañ ne ndaw ñi bu ñu toggee fii mun nañu am li leen gënal day fekk nag nguur daal ci sumbub loxoom Amadou Seye mu nekk président association mareyeur yu nekk fii ci senegal ci micro Ismaïla Marcel Kouli. ko mooy ko ñun fii Soumbédioune hmm. amul benn gaal bu soxlawuñu ko li soxla mooy liggéey liggéey nag kenn moo ñu ko mën a jox muy le président de la république mu yokk mi ngi def lu mu mën si secteur de la pêche dañ koy ñaan mu yokk terewul nag ministre bi mu andi mu Alioune Ndoye ñu dalal jàmm di ko sant di ko gërëm di ko accompagner si vision bi mu yokk loolu rafetul mënoo loo bàyyi si dëkk mu war a am liggéey nga war a góorgóor naa damay dem dëkku jàmbur terewul kenn ku mu neex nga jël sa objectif nga def ko mais suñu sañoon da leen conscientiser maanaam wax leen andiwaat seen xel pour ñu toog xam ne fii mën nañ fi liggéey waaw gone wul ñaay bi rek duñ ko duñ yàlla parce que lépp li leen di waxtaan ak ñoom lépp moo leen di dalal seen xel naa leen bu leen jël gaal gi bu leen de am na beneen façon buñ ko war a defee boo xam ne da liggéey fii ba yàlla defal la sa teranga teranga mi ngi ak euh, ministre euh, Alioune Ndoye mu jàppale ñëpp cause pour laquelle loolu moo tax CAP ñëw pour renforcer secteur bi pour nga xam ne léegi vi vision bi président am pour xale yi bénéficier wu si ay financement si ay lépp secteur de la pêche daal ndimbal si président de la République ak Alioune Ndoye ak euh, monsieur Thiam président CAPS pour nu dimbalu nu rek xam ne ñu soxlawu nu dem Barça on a envie de travailler donne-nous les encadre nous noone itam nguuru Sénégal jàpp na ne lile du lu bees ci mim réew gouvernement Sénégal nag dafa fabu niki tey ji gën gaa taxaw ngir daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk boobule la cay firnde bokk na ci programme yu yees ak yu bëri ya nga xamante ne daal di na ko teg ngir rek fexe ndaw ñi daal di am po xëy ki xamle li ni mel di jëwriñ gi ñu denk lépp lu jëm ci wàllub ndaw ñi di Néné Fatoumata Tall ñu teewlu ko ak Adja Ndeye Mariam Ndiaye waaw bari na projet yu bare bari déjà président de la république bi mu ñëwee li mu njëkk a constaté mooy que ni formation bi nga xamante ni ndaw ñi ñi ngi koy recevoir ak li nga xamante ni moom na ñi nga xam ni moom nañuy joxe ñooy joxe liggéey li ñu soxla dafa xaw a waroo tuuti ci la jël teg euh, li ñuy wax 3FPT mooy formation professionnelle mu investir ci bu baax a baax a baax a baax jël li nga xamante ni nag euh, mooy euh, daj dëpp gi muy délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes bi nga xamante ni moom euh, financement yu bare bare bare def na ko parce que DER bañ ko créé léegi euh, financé nañ ci lu toll ci cinquante sept virgule soixante dix huit milliards yu financement yu nga xamante ni nii euh, am nañ cent cinq mille bénéficiaires ci ci bénéficiaires yooyu quatre vingt quinze mille yi ay bénéficiaires direct la ñoo xamante ni ay dañ leen a financé directement ñoom seenu jëmm kese kon effort yu baree baree def nañ ko ci ak ISEP yi ak institut du pétrole et du gaz nga xamante ni Sénégal buñ ci bu ci yàlla àndee dinañu am pétrole am am gaz am nañ ko déjà dinañ ko commencer exploiter te métier yooyu ay métier avenir la yoo xamante ni Sénégal euh, du romb ndaw yi Sénégal en tout cas loolu moo tax nag euh, perspective yu baax a baax a baax dafa nekk ci réew mi ba tax na jaru li ñàkk liggéey ba nga xamante ni peut-être am na ci ngen ñi warul tax ñu dem di euh, jéggi géej gi wala di tenter ay tukki yi nga xamante ni tukki xaru la ginnaaw bu fukki simili juróom tegoo ci juróomi waxtu ca gumeel jàpp ñëfu leen foofee ca Sigicoor la ñuy àddu ci mbirum politique gis nañ ne nag ndaw parti socialiste yi ñoom ñoo daal di lëbëje la nga xamante ne moom mooy ndaje bu yaa biñ fa daal di woon amal ni ki démb ndaxte nag gis nañ ne ko jiite ndaw ñi dañ ko daal di bedd ci xew-xew boobee moom nag mu ut gàngooram ña ñëw daal di yàqate lépp la fa Ignace pëccëxoo ak coow lu rëy la ñu woon démb ci ndaje bi parti socialist woote woon fii ci diwaanu Ziguinchor ak ginnaaw kii di responsable ndaw yi bokk ci parti socialiste jàpp ni invité wuñu ko dañ ko beroon ci assemblée générale bi ni mel Lamine Diédhiou mer loolu dugg ci biir salle bi daal di jaxase lépp. kii di lamin Diédhiou jàpp ni du nangu li ni mel daal am. Lamine Diédhiou dafa woote réunion union union régionale ba mu mu teggi ndaw ñi boolew leen te war a waxtaan lu jëm si wàllu vente des cartes war a waxtaan lu war a jëm si situation politique nationale wara waxtaan lu jëm si waru local yi te ñëpp xam nañ ni ki kuréel boo gis moo xam kuréel politique la moo xam association la ndaw ñi jigéen ñi ñoo koy téye au moment wu ñun fii Ziguinchor ndaw ñi fii nii parti socialiste presque mën naa ne euh, euh, euh, lu ko desee si ay militant bëriwul au moment ñu war a massifier dooleel parti bi dem uti ay ndaw doole leen yow ngay jëm a ndaw yooyu ci euh, euh, massification parti bi. loolu yéenul maanaam. Euh, de waxul dëgg. amul kenn ku mu envoyé convocation. lu tax man jotuma sama bos. man yàgg naa ko woo. depuis ce pandémie bi dama koy woo pour ñuy xalaat. mel ni loolu doyul Lamine Diédhiou nag di ŋàññi ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général union régional bu parti socialiste jàpp ni moom ci boppam sax kenn xamu ko ndaxte moom légitimewul Lamine Diédhiou. doo dem fenn ba ne la moom. moo kuy représentant partition xamuñu ko xamuñu ko à chaque fois dans la coalition bu ñëwee il se présente toujours man la diw te loolu warul nekk cëram dafa war a constant Ziguinchor constant fii nii di mën ay activité politique lu ñu leen di wax rek mooy ñu bàyyi xel si genre ni ñuy mel nii parti bi faw mu dund faaw kenn ku si ne ñu jox ko cëram lu mu yelool si parti bi loolu mooy yoon. ndaje parti socialiste bi ñu ci doon waxtaanee lépp lu jëm ci situation politique nationale di ci waxtaanee tamit wàllu vente des cartes ba ci waajal li di élection locale yu ñuy dëgmal ndaje bi nga xamante ni kilifa parti dañoo bëggoon def remobilisation des troupes waaye nag. coow lu bëri moo mujjee am ci ndaje bi ni mel Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye coow ak politique ñoom ñoo daal di ànd dañuy desandeeg foofu secrétaire général bu union régionale ba fa di Bakary Bassène jàpp na ne nag yëf yi du ko bàyyi mu sedd dina ko yóbbu fa mbax na doone benn ba képp ka nga xamante ne laale na ci yàquteef yooyee ñu daal di ko tegu loxo Bakary Bassène ñu teewlu ko ci micro Ignace Ndeye. parce li ma yàgg ci biir parti ki mel bu ko ñemee rek ma ne kii xamul lu mu demee alors def na lu ko neex menacé na ma saaga na ma nit ñi taxaw ne ko bon li ngay def baaxul et puis finalement dañ ko génne l léegi ma ne bon ñu ne ma li euh, ma ne kilifa parti bi biñ ma ooyee lu euh, muy ñeent ñeenti responsable yu mag yu kawe yu gën a kawe sax ñuy gérer parti y yi nga xam te ne moom moo gérer administration ak finance parti ñu ne ma nan la leen ma ne vraiment ça s'est bien passé parce que man man pour man c'était un incident qui qui n'a pas d'importance ñu ne ma euh, ku ci nekk nee na ma mais lii ak lii lañu parce que gis nañ ko ci réseaux sociaux yi nañ ko wilaat wilaat balancé nañ ko léegi yow lii sa xalaat man la en tout cas daa man daal loolu si donc ñu ne ma loolu boo ko jëloo boo ci jëloo ay mesures parti bi dina jël ay mesures parce que lii li ñu daloon le cinq fële à Dakar ba lii mel ni bëgguñu lii ama parce que instance bi ñu réunir secrétaire exécutif moo la moo la moo la yebal pour nga réunir ko et c'est une ordinaire bi nga xam ne dafa bokk ci règlement statutaire du parti kon nag léegi boo yow boo jël ay mesures ñun daañu ko fa jël li parti dañu leen comme étant laxiste kon loolu bëgguñu ñu mu sam ci parti moo tax ma man commencé naa or ci sa yi am na ñaar ñoo xamante ne euh, wax wax waxtaan ak ñoom mais ñu waxtaanee yëpp. parce que mën naa gis sama bopp en tant que personne civile agressée attaquée injuriée mes documents ont été détruits détruits y compris kayit bi nga xam te moom laa moom laa demandé woon fële au préfet pour wax ko pour ñu réunir d'abord kayit yi mel noonu nga jàpp ko xotti ko kii ko pare sànni ma ko ci ci kanam comme ça mu daan ci ko table nit ñi di ko xool mais quand même aman ci comme loolu amul alors man sama wàllu bopp dinaa te pour que lii du am ba pare parti conformément avec parce que instance bi ma ko réunir parti bi moom digal ma moo jox ndigal ma ma def ko. léegi lan mooy seen position da parce que man maa ngi waxtaan ak euh, au niveau du parti. ci noonee ca Ziguinchor la ñuy bàyyeekoo jël ci yoon bi Kolda Vélingara génn ji ca Koundara Koundara nag moo ngi nekk ca Guinée Conakry foofee coow la fa rawatina coowal politique farando seelu dalan jàllo yi nag niki tey ji daal dinañu génne lii lee di communiqué jaarale ko ci union des forces démocratiques de la Guinée ak it alliance nationale pour l'alternance et la démocratie di anaat ñoom nag ñoo ngi gën di woote niki tey ji ne nit ñi nañu daal di génn nu mu gën a bëree ngir rek daal di métitlu la nga xamante politique gu ñu jàpp ne kii la di Alpha Condé dafa daal di fokkati eh, lu jëm ci wàllu PV yi ak élection yooyu ndaxte nag dafa jàpp ne alfa konde dañoo defar ay PV yoo nga xamante ne jaarut yoon ci jamono si nga xamante ne ñoo ngi yóbbu lii lee di eh, PV yooyu ñoom nag seetlu eh, dalan jàll ak ay farandoom nee nañ dinañ dem ca conseil constitutionnel daal yóbbu PV yi nga xamante ne nag ci jour bi ñu paree lii di vote yi lañ fa daal di amee ngir rek ñu daal di contester la nga xamante ne moom mooy ndamal kii di euh, Alpha Condé. ca Guinée googee la ñuy des ak njàngat li ci euh, kii di Afrikajom sant daal di am rawatina lu ñu jàpp ne kii di Alpha Condé moo am ci téeméer boo jël juróom fukki ak juróom-ñeent lu tak tuuti ci ay xob ñoom ñoo ko daal di wooteel résultat yooyu nag boo moytul jàpp na ne dina yóbbu wala boog dugal ci réew moomee ci guuta rawatina ci institution yooyu gis na nag li ni mel sax dafay daal di law bu yeneen réew ci Afrique Alioune Tine africa Afrikajom sant ñu teewlu ko ci micro. Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Euh, résultat yi boo gisee njàlbeen gi ni mu commencé ak euh, référendum bi pour def li ñuy wax troisième mandat xamoon nañ ne bu ñu ñëwee ci ay élections yi du ñu am ay élections yoo xam ni dina leer du ñu am ay élections yoo xam ni lii tamit du dina jur jàmm te loolu it gis nañ ko bañ fa demee def génne nañu suñu communiqué de presse pour wax ne eh, li ñuy wax confiance amul. ci élection te élection confiance moo ci am euh, bu li ñuy wax tamit euh, wóolute amu ci ba pare ñetteel bi mooy xamuñ fu ñu lu ne mun na indi ci élection yi te loolu am na tey te bu ñu demee ba nga xam ne toll nañu fi tamit ci biir gine war nañoo xam lenn mooy troisième mandat léegi moo moo yees li ñuy wax coup d'état militaire te te amul paj maanaam bi ñu jógee am Mali ci coup d'état militaire bi président yi jóg nañ hmm. def nañ fexe nañ sax ba nga xam ne am nañ lu ñu taf tafal mu dem mais troisième mandat ñi nga xam ne ñooy décider ci biir CEDEAO ñoom ci seen bopp ñoo nekk di yàq li nga xam ne nag moo nekk ci seen biir réew te benn décision mënuñ ko jël loolu nag tamit indi na feebar bu rëy ci CEDEAO ça veut dire que il faut ñu réformer CEDEAO il faut que ñuy jël décision ñi nga xam ne ñoo am ci organes yi ñu bañ a nekk ay nit ñoo xam ne ay politique lañ wala dañuy parparloo wala chef d'état yi am nañu aussi benn pouvoir ci ñoom te li nga xam ne mooy am tey Guinée eh, non seulement bettuñu mais buñ ko booleeg li nga xam ne moo am Côte d'Ivoire lii ñu wax diwaanu Afrique de l'Ouest mën na mën na mën na tàkk su mën ne nii ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci situation boo xam ne situation bu graaw a graaw la ndax ñii nga xam ne ñu ngi leen tuddee jihadistes te ñu sonal waa Mali sonal waa Niger sonal waa Burkina Faso ba pare di menacer tout l'Afrique de l'Ouest ñoom dañuy jonkoon rek toog di xaar bu réew yi demee ba nga xam ne na sax nañu ci seen biir ñi ngay xeexoo di xuloo am fitna ñu ne ah réew mi de tey léegi dëgg-dëgg kii na sonn na xaaral ñu dal seen kaw donc il faut ñu xalaat loolu te xam ne tey mbir mi du mbiru chef d'état yi rek mbir mi mbiru africain de l'Ouest yépp lañ jóg dafa jot wax dafa jot artist ya képp koo xam ne boo waxee ñu déglu la war ngaa jóg nga wax tey parce que situation Guinée ak situation Côte d'Ivoire boole ko situation Mali Burkina Faso ak yeneen élection yi ñëw dëgg-dëgg duñu ko attan limu ñu àddu ci limu mbasu bésu tey jii fukki nit ak juróom ñett ñoom ñoo ko daldi amee bees amul kenn ku ci ñàkk bakkanam ni ki démb ñeenti ñoo ngi leen di rawale ci wàllu bu kër docteur lu toll ci juróom ñaar fukk ak juróom ñeent fa ñoom daldi nañ wër bi ñibbi seen kër leeraay ñu ànd ceeg docteur El Hadj du Ndiaye. tey di dibéer ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre mi ñu nekk ministère la santé et de l'action sociale. jot na résultat examen virologique yi may waaj a ci juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari test yi ñu def fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo joxe jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn ka bu jógee bitim réew am nañ ci fukki malade ak ñaar ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am ci ñett Fann Résidence am ci ñaar HLM am ci benn Waguñaay am ci benn Liberté 6 am benn Almadi am benn Pikine am benn Kër masaar am benn ak Nioro am ci benn juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bu su démb ajuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñeent ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo génn àdduna mu des junni ak juróom benn fukk ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen ba ñu génn ak jàmm Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre wax sa xalaat 88 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 tey kon tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy ne rafet ngeen bañ fi fay wala boo ngeen. yaay ñëwal ñu àggale marché bi. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. soo se kooku yegg siwul ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33. salaamaaleykum. Birama. waaw. maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar. delloo ziar Dia. di ziar bu baax sama ñitt sa foofu di lañ naan gudd fan wër a xéewal ndam yi yaatu yaatu. ci maanaam ci li ma bëgg a jublu nag mooy mbirum ndox mi daal manque yaay bi dafa metti lool Birama. Mhm. surtout Grand Yoff xaar yàlla Scat Urbam fépp ndox ma mënatuñ koo teg bët. li may ñaan daal te bëgg président dégg mooy ki yorum mbirum ndox mi mu wax ak moom parce que askan wi sonn nañ lool ak tàngoor wi. mënuñoo am ndox ndox mi daana ñëw trois heures sax mais léegi ñëwatul far benn sapp doo ko gis hmm. kon moom nañ leen jàppale di leen dimbali leen indi leen ndox mi ndax ñu naan ndox mënut a manqué ci Sénégal ndox moom waaye moom waxatuñu waxee ndox sax yooyu moom vingt nit ñi mën koo jot ni ñu ko war a jote sonnoon nañ ci lool li nga xam ne ñoo ñi leen a jox leen ay tànk lañ leen jox nañ ca farlu nañ ca liggéey nañ ca dox nañ gëstu ba xam mi ngi dox wala doxul ministre bi nga xam ne moo yor wàllum ndox mi na ci dox na xool ba xam dox ci dëkk wala ndox ci dëkk parce seen ñuy fatwal mu jaar ci ñoom waxtaan ak ñoom ni leen diw ak diw nii lañ mel ba àgg fi continuer leen mais loolu mooy yoon kilifa bu la dénk lam la dénk da nga cay dox guddi di dox bëccëg amoo samedi amoo dimanche parce que loolu la góor di waaye yooyu yëpp jarit la nekk Makhtar Ba xam naa ne noom dox lu nit ku baax la parce que li ñu ko dégg daal li ma gisee moom di ko gëstoo di ko doxee ku bëgg président nga boo ko laajee foo jëm daan la lu jëm kanam réew mi kanam laa bëgg noonu lay def président ko wóolu fal ko wóolu ay morom fan leen waaye ni ñu ciy doxee kenn doxewul kon boog na nit ñi soppi ay doxalin te taxawu askan wi sonn nañ lool ci tàngoor yi amoo ndox amoo dara loolu mën naa ñàkk nañ ci taxaw daal jërëjëf jërëjëf Mamor Dia ca Padoa ñu daal di jël keneen ci ligne bi waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ mhm. Adama. Omar Sow. maa ngi lay ziar de. delloo ziar. allo. waaw Sow. waaye dégg-dégg bi moo fee moo ma suufee trop waaw waa ginnaaw bi ma sant la. acca rek bisimilah di wax ci affaire wu affaire transport bi. wax dëgg yàlla transport bi son excellence monsieur le président El Hadj Macky Sall war na ci gën a gaaw beral loxo bi vraiment ci train yi. rawatina dem Dakar ba Tambacounda ba Rumbu Tamba sax. si wax dëgg yàlla seen directeur général la Mimi Touré mu ngi def ay réunion yu am solo mu ngi def ay gëstu yu am solo ak seen ministre Mayacine Camara mais daal vraiment affaire bi daal defe naa euh, des na ci te accident yi fii Sénégal li mu gën a mën a wàññi mooy il faut train bi il faut train bi dawaat train bi dawaat il faut train bi dawaat lépp lu ko jar vraiment gaa yi man daal maa ngi leen di ñaaxaat lañ xam ne carrément surtout Sénégal yi bëgg nañ vraiment train bi dawaat xoolal train bi bu dawee ak gaar yi nekk ci dëkk dëkkaan yi xoolal ak nu muy doxee vraiment daal président de la république boo ñu ko ñaan vraiment mu kii loolu su ma jeexlee mooy affaire campagne gerte bi campagne gerte mun na actuellement ni gars yi sumb nañ ko pare ñu ngi xaar vraiment Kenya toog semaine bii di ñëw ñu fixé le prix de l'arachide donc directeur général Sonacos nee a ren moom prix bi moom d'accord pour ñu yokk prix gerte bi vraiment dañuy yëpp ñu ngi ko ñu ngi ko ñu téeméeru loxo ñun daal loolu la loolu la professeur Moussa Baldé nga def loolu loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la ñaan yàlla jërëjëf Omar Sow ca Fuladu ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. allo. allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. Adama. kooku. waa kii de ndongolu sant Dioum lay wootee Ndiarème. Dioum waaw. waaw maa ngi diisati la ma daan diis rek de muy sunu mbaam xox yi nu la jël ci dëkk bi. Eh, wax naa waxati naa waxati naa ba fi ne bu nu watuwul lii tooxi doona day am ndax dañuy mujj di fajal suñu bopp ndax lëjal nañ ñu guddi lëjal ñu bëccëg guddi gi na nga ëpp loo def ci bët mbalit yi dañ koy tasaare kenn mënut a am mbalit ñun ñooy fay sare saret yi roñ mbalit yi bu boobaa du tee ñu ñëw tasaare ko borom saret bi bu ñëwee du jël dara ndax fekk nañu tasaare ko loo fi def ñu yàq ko boobu ci laa nekk beneen bi maa ngi wax ci élection yu Guinée yële hmm. dama bëgg réew mi ñu xam ne bu nu tubaab yi nax tubaab yi seeni mbir dox na ba noppi bañ suñuy mbir dox ay ñaari mandat ki ñetti màndaa yooyu ay nax la ay dóor la bu dee réew mi ku ñëw ñu dénk ko ñaari mandat mu ànd ak ñi mu bokkal lekk dem keneen ñëw lekk dem réew mi du jag mukk gis nga fexe nañ ba yàq Libi yàq nañ Syrie yàq nañ euh, beneen yeneen réew yëpp yàq nañ leen ana Libye ba fa xanaa fi jógee léegi lu fa ne xuloo xeex tubaab yee ko def réew nañu bàyyi fekk nit kaa ngi fi nekk di mën a liggéey di ñu liggéeyal saa bu nu noppee liggéey ñu jëlee ko fi suñu bopp loolu mooy démocratie waaye li ci des ay nax la waa ñii ma dégg ñuy wax leen ñooñu ay dóorkat la tubaab yi leen fi yebal di leen fay ñuy wax loo xam ne teguñu ko fen nañu lànk nun ñi fi ne Macky Sall de fekk mi ngi fiy nekk di ñu liggéeyal tegu ci yoon nañ koy jox réew mi suñ ko fi jëlee ñeneen ñëw lekk dem ñeneen ñëw lekk dem kañ la Afrique bi jag di jag tubaab bi pare nañ ñoom ñun demaguñu fenn ñu bëgg noo yàqal suñu liggéey nañu lànk mbaa mi nag nañ ci dimbali mbaa ñu fajal ko suñu bopp jërë ngeen jëf. jërëjëf Ndongoli Dioum foofee ca Njaareem euh, ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mhm. man la Almakhdiou pour ñaari mbir. waaw. donc premièrement bu ñu sukkandikoo ci li xew Guinée. élection yi président Alpha Condé di sakku troisième mandat. te ñu di ko ñaawlu mën nañu wax ne fekk ñàkk dugg seen digganteeg yàlla ci yoruñu nguur dañu sago njiitu réew yi ci Afrique gis naa ak ñaawteef du dañ ci biir askan yi ci Afrique. saa yu fi élection jeexee moo tax ñu ngi sàkku ci kilifa CEDEAO yi ñu xàllu ci dëggu ànd ak fayda delloo sago njiitu réew yi di ñuy tënku ci santaane bépp constitution bu mayewul tollanti seen mandat lu weesu benn yoon donc aux autorités de la CEDEAO nous demandons de faire montre de plus de rigueur de bonne foi pour ramener les chefs d'État de la sous-région à la raison afin qu'ils respectent les dispositions constitutionnelles ils n'autorisent qu'un seul et unique renouvellement de leur mandat. Et afin qu'au jour du jugement de Dieu, vous ne soyez traités comme des complices cautionneurs de leurs manœuvres frauduleuses pour un troisième mandat. Est-ce qu'il y a des anges qui veillent sur vous et savent ce que vous faites Voilà 82, la rupture du ciel. Deuxièmement, je suis sage à ma place, les mains sur la table, je ne bouge plus. man gis naa ne ndaw tey xam nañ ne buñ leen jàngalee boobu wuy école tàmmal leen bëgg a nite moo ko waral kon buñ yéegee ci nekk mag bëgg a génne seen sago ci loolu day yëngoo jëf bu bokkul ci nekk ni ku nite jublu ci dunde ni bàyyi ma moo leen ci dugal te kon ndaw bu góor wala bu jigéen bu tànnee àndandoo bu góor mbaa bu jigéen ni moom ci sëy nekk na bàyyi ma ci jëf muy lu xaram ci dundinu doomu aadama ak contre nature noonu itam émigration clandestine biñ nekkee te méngoo xaru lu araam la ci dundu doomu aadama lu warul fat bakkanu doomu aadama bay jox boppam sañ-sañu takku euh, lu koy rey jërëjëf max di Mahdi woote ca Kaolack ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum ala salaamaaleykum maaleykum salaam ala salaamaaleykum maaleykum salaam waa Birama Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu Socé ak waa Sud FM yëpp maa ngi lay fay maar waaw Birama. waaw Mar. ma ñëwaat tey ci rajo bi. Mhm. Birama Ndiaye. Mhm. xam nga dafa am loo xamante ne dafa neexul ci xol daal. Hmm, mooy lan. dafa am suñu frère boo nga xamante ne dafa nekkoon fii di liggéey ak ñun dëkk nag man trois ans di jàppale sénégalais yi di wax ci loo xamante ni njariñu Sénégal moo tax mu ko doon wax yàlla def ñu xeex ko takkal ko bu yóbbu ko Sénégal tey ñu ko jàpp tëj ko ci kaso bi. boobu ba léegi amul benn droit boo xamante am na ko pour am liberté ci droit am muy Assane Diouf te gis nañu régime mu mag Macky sàll ñi mu àndal ñu ci bëri ñu ngi jël suñu alal di ko dunde ñoom ak seeni njaboot ba pare di ñëw Amérique gii di ñu fi fekk di dem itali ak France ak France di ci def leen neex nit ñi di ci teg seen bët te kenn mënu ci dara te taxul ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi barki dem lañu gis ku jege Macky Sall taxaw ne ñëpp pare ay jaas yi Macky day am troisième mandat mbaa ñu jàkkaarloo ak population askanu Sénégal te tey jii kooku mu ngi nekk ci liberté ca Sénégal. kenn Assane Diouf dafa di yoon pour ñu bàyyi ko mu génn parce que doomu Sénégal la te nguur gu nguur day nguur yàlla day jeex Macky Sall ay doomam fii la ñu nekkoon ak ñun muy Amady sàll moomu ba ci keneen ki ñett fi juddoo. kenn ki juddoo fi mooy Amady moom parce que yaay ma ko utal këyit ci green card bi mu amoon ñun xam nañu fii ni mu demee na bàyyi doomu jaambur yi ñu muy jàpp di leen tëj bu nit ñi bëggee dox pour def seeni marche di dénoncer ak ki xam ne dañoo nekk alal euh, nekk Sénégal di sàcc alal réew mi pour ñu koy wax sénégalais ñu ne kenn du ko fi waxee ku wax ñu jàpp tëj ci kaso bi loolu dafa ñaaw trop loolu du démocratie na doxal ni président Wade doon doxalee te élection locale na wax kañ la sénégalais dañoo pare pour jëlee. jërëjëf Mar woote ca Amérique ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur Birima. Diop na def. sant bu baax Diop. di la nuyu di nuyu waa groupe bi. ñoo ngi lay fay Diop. mais monsieur Birima. waaw. li sama góor gi daan wax nous sommes des africains. Hmm. africain rek mooy sacrifier peuple am ay génération pour son propre intérêt wala intérêt étranger. loolu moo xaw ci suñu réew Afrique yi su ma déggee ñu naan dañ fa war a dañu war a dindi limitation de mandat mais ban africain nga fi gis fii président africain bu yàgg ci pouvoir ba développé réewam exemple yaa ngi fi ah demal Tchad Idriss bi plus de trente ans ma nga fa avec tous les ressources naturelles li Tchad am Tchad fait partie des pays les plus pauvres du monde demal Cameroun avec le président président Biya plus de trente ans ma nga ca pouvoir ba ana ana ana ana ana Cameroun fan la développé yàgg ci pouvoir taxul nga développé réew réew am liggéey nga koy parce que suñu président yi yàgg ci pouvoir bi seen lenn dong la sàcc suñu alal ñoog seen famille sacrifier génération yi génération te attention Afrique seen l'avenir du monde ah ressources naturelles yi nga xamante ne Afrique am na ko amul beneen pays bu ko am te actuellement européens yi américains moo tax Afrique li xew Afrique duñ ci wax parce que président ba fa nekk bu xamee ne bu ñu xamee ne mu dina doxal seen affaire rek dañ koy jàppale mu toog sacrifier suñu suñu suñu suñu suñu génération loolu moo fi xew ressources naturelles yi am tey avec Covid bi dafa jàpp européens yeeg yeneen pays bu ñu doon wax pays développé yi léegi nag Afrique la ñu bëgg yaakaar parce que Afrique mooy seen vache au lait ñëwaat campare suñu ressources naturelles gis nga suñu géej gi jaay nañ ko jaay nañ ressources naturelles yi nga xamante yépp moo ñu waroon développé ñu ngi jaay suñu suuf si waaw. vraiment lépp lu nga xamante ne amoon nañ ko ñu koy jaay moo tax xale yi di jël di jël géej gi kon yàgg ci pouvoir taxul nga développer réew réew pour nga développer da ngay nekk un patriote di wax dëgg doo fen sa population seen fonk sa kàddu nangoo liggéey bàyyi sàcc ji loolu rek mooy tax sa réew développer. jërëjëf Diop wootee ca Italie ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum allo. biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaan tey kon tënku leen ci ponk ci 88 lay doon 628 98. allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Adama. kooku. sooy bu Sow Pikine. sooy bu waaw. ñu ngi leen di ziar de. delloo ziar. di leen di bëgg participer ci wax bi rek. yaa ngi ci biir. waaw waaw. ñun ñu bëgg a wax ci affaire Guinée bi. waaw. mooy. CEDEAO na wax ci lii sama baatu démb mooy sama baatu tey. ci CEDEAO na wax ci lii ndax it troisième mandat dafa tegul fenn ñi koy jéem a lewal nanu ko ba te xam ni ñii fitna la ak rey doomu aadama am na ci ñoo xam ne si dama ànd ak moom si wax sa xalaat ji de waaye bëri na ci ñuy wax yoo xam ne si cent pour cent ànd naa ci ñoom ndax it chef d'état fi kay danoo seetaan te CEDEAO dañ koo jël def ko seen mbirum association ñoom quinze pays ba du yoon ndax fii benn defe ba gàmm bi defee lu dul yoon ñoom ñëpp dañoo àndandoo dal ci kaw gàmm bi kon nag Alpha Condé def na lu dul yoon na ci CEDEAO gépp wax président yëpp wax ci ñu deltu gannaaw delloo kii victoire am jàmm la ñooy te ñu bàyyi seen troisième mandat yi may ñaan sama président ñun de suñu soppe la dawil lit ba tey ñu ngi ànd ak moom waaye bu ko ko ci kenn dugal bu ko ci kenn dugal fa ko ci nekk ñoom ñëpp seen intérêt lay xool kon nag maa ngi koy ñaan liggéey bu rëy bi mu fi liggéey bu ko dara yàqal ndax yi dafa ñaaw reyante gi askan wi reyante xeet gi di sonn ñii di gàddaay seeni kër muy lu ñaaw a ñaaw a ci gis-gis ku xool France 24 xool TV5 xam ne lii ñaaw na muy Alpha Condé muy Alassane Dramane Ouattara lu ñaaw a ñaaw a ñaaw la président Macky Sall bu la ci kenn ñoom ñëpp wax boo daanoo dañ lay dem ba salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf soin bu sow ca Pikine ñu daal di jël keneen ci lay doon 628 98 98 salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bii noo tudd Faye. maaleykum salaam Birima Ndiaye. waaw. waaye Mbajaxaan la ci ngir ngi neew. <laughs> Mbajaxaan waaw. ça va ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah ñun de xam nga Birima fu ñu ñàkk a saaf. Ah. ba ñu jàppee Mamadou Dia dugal ko ca kaso ba. Hmm. Ablaye Wade di ñëw. te Ablaye Wade bu mu ñëwee ndeysaan newoon na africain africain combattant de la liberté. ñun suñu liberté boobu président yi ñu koy jox de ñun africain ñoo ko kenn ku ci nekk muy la ñëwal dugg si ci biir jëriñoo li nga xamante ne moo fi nekk tubaab yi nga xam ne topp nañ leen 60 ans mënuñu ñoo dem bu ñu tënkee ci borit lu ñu mën a am ci gars yi fayee leen ko bor waaye gis nga li ñu ñu mujj a def fexe ba ñu tubaab yi léegi nag bu ko defee kenn ku ci nekk daanaka ci tubaab yi ngay demee rek buy organiser élection fii moom xoolal allah kulli ñu ko organiser ñooy gagné parce que ci parrainage bi lañ leen na leen nax leen bi mooy yow ki yi moo gën a wóor biruma tey boo duggoon ci oto tey mu leer la ne oto ba ci boppam fukk ak juróom moo ca nekk ñu bindal la ci këyit ga fukk bis boo demee tey fa nga koy déchargé dina nga dem ci oto booy indiwul juróom këyit la xam même sa doom bu amul këyit xamuñu ko sa suuf bu amul këyit nangu nañ ko kon nañu basé wu ci këyit yi institution bi jël na fi tey ay sages yoo xamante ni yokkal na leen seeni at xam nga ni ñooñu tey Sénégal amul kenn koo xamante ni fii yaa ngi fi bëgg tey euh, di teel retraité yokkal nga xamante ni ñoo fi nekkoon alaa kulli yàlla li ñu bëgg leen leen defal salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah mba jaxaan ca gin gi néew géo ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. aleykum salaam. aha sëñ bi. Eh, Birama. waaw kooku. waaw Cheikh Thiam la fii ci Fann Hock. aha Cheikh Thiam Fann waaw. bon man Birama bu ma seetoon gars yi ñuy jéem a xool di def analyse ni ñuy waxee c'est très important. Mhm. man ni ñuy ŋàññee tubaab bi damay dem ba sax sama fit day tëf tëfi parce que xam lu tax hmm. bu ci woote ci wax sax xalaat ñii ñu ngay wootee France ñii Italie ñii Washington état un peu partout dans le monde ci hmm. te képp ku jóge fii par exemple yaa ngi dem ci réew tubaab bi tey jii koo fi gis mu tabax kër alal ji ci réew tubaab bi la ko jëlee hmm. ci suñu nation bii ñu nekk tey jii sénégalais bu fi yàlla may teraanga li ngay njëkk mooy passeport français boo mënee jël say doom wutal leen nationalité français ñu ci bari tey jii les quatre-vingt-dix pour cent wut nañ ko pour seen ay doom kon donc booy wax bu bañ nit bay fàtte yow na ngay waxee parce que c'est très dangereux mm. Macky Sall bëgg dem wax nañu passé fii ñëpp di ko dégg ba muy jàng nekk tout tànk élève fépp muy nit ku baax nit ku noble nit ku am valeur un homme de personnalité ko nit nag boo ko xasee bañ rek bañ nga ko mënuñoo wax dara ba nga bëgg ko loolu mooy mentalité des Sénégalais mais borom yaay ju baax bu naree fande ginaar lay reeree wax na li muy wax ci troisième mandat ñu bëgg fi suñuy géej ak lu nekk di wax Macky Sall ne pas ce genre waaw bu affaire bi jeexee bu xam ni mandat bi jeex na di ngeen gis ne Macky Sall dina rendre ngay kuy jël réew jël ko réew mi mais par exemple mentalité des Sénégalais war nañ ko changer wax wax yéen di wax ku ne nekk bitim réew te ñu ci woote bitim réew la ñu nekk di lekk ca teraangay tubaab yi ba pare boo bëggee toog di ŋàññi tubaab loolu c'est pas mais c'est pas gentil nañu xoolaat li wax bu baax xoolaat seen toogin allez. jërëjëf jërëjëf Cheikh ca Fan ok ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98. egsiwul. allo aha asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëñ Ndiaye na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Aliou Diouf Paris. Aliou waaw tey dam nopp lu sax mais daam ko woote léegi bi impliqué ñu directement ñun ñuy wootee fii Europe. Hmm. waaw débat la rek. Hmm. moom noonu la ko gisee mais dama yaakaar ne gis-gisam soriwul quoi parce que ñun boo gisee ñuy woote suñu suñu xol neexul su suñu dirigeant mooy bu ñu bu ñu bu ñu gérer woon suñu ressource yi normalement nuñ ko war a euh, gérer ñun duñu ñëw fii parce que ñun dañuy dund dañuy dund fii gis lu fi nekk xam ne ñi eh, dirigeants yi nekk fii Europe ñun yoru ñoom yoruñu un dixième de sunu ressource naturelle yi foofu Afrique te seen réew mu ngi dox normalement parce que dañu am ay dirigeants yu baax ñun bañuñu Macky Sall Macky Sall ba mu gañee man fii dama dama dama invité xar laa rey dugal ko ci four bi kër gi fees del ñuy noos waaw ñu ne am nañ enfin un président jeune né après les indépendances waaw ndekete yoo maam Ablaye waat sax moo koy tane lu ñu fi kii woon yëpp delloo na ko tubaab yi Ablaye Wade lu ñu ko mën a waxal tam uti woon na yeneen yeneen kii coopérant France kese nekku fi waaw ñii fi nekk nag ñoom daa mel ni ñoom ay sous préfet sous préfet France lañ daa mel ni France la ñuy gën a liggéeyal que Sénégal kon kooku di wax noonu bu mu bu mu ko gisee noonu ñun dañu nekk fii mais neexuñu bu ñu sañoon ñu def Sénégal bu ñu sañoon Sénégal la ñuy def di tedd parce que nit ki fépp fu mu mënti nekk réewam moo ko gënal waaw loolu la rek la woon merci. jërë jërëjëf Aliou Diouf ca Paris ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. biti réew 33 841 22 33 soose ñu daal di jël keneen ci ligne bi bu fekkee egsi na. salaamaaleykum. sëñ bi ñoo ngi lay ziar. delloo ziar. allo. aha Ndiaye. Ibrahima Ndiaye Pikine Garaay moo leen di nuyu. ñoo ngi lay fay. mu ngi sant yàlla di julli cont bi alayhi salaatu wasalaam di siyaar sëñ Abdou Karim Mbacke. ak Cheikh Mouhamadou Rafael Mbacke. di ñaan jàmm ci dem di ko ñaar Sénégal yëpp nag. di rafetlu itam nag émission bi. di leen wax ne sëñ Saliou mi ngi leen di nuyu. di wax ne genn fiilu courant mooy la nga ci biir dëkk booy bay buuba ci suuf te jaaxal leen bëgg nañu waa Saint li ñëw defar si dëkk bu ñor jogo. bëgg man nag li may ñëw mooy ci wàllu socialiste bokk na ci. damay ñaan sëñ ci am mu delluwaat tànkam ca mbedd ma ndax Aminata Mbengue Ndiaye seen jigéen la di jàmbaari fàkk tëdd lu ko waaye contre contre moom na ko nangul ne mën na politique xam ne na yar am na teggin wóolu ko moo tax ñu toftaloon ko ci gannaaw Tanor bi yàlla ñëwee li ko soog ba Tanor dem ñu bu dem toog ci maison de parti waxtaanee ko fa ba jubóo ci ay kàddu waaye rafetul mu taxaw ci mbedd mi ni ngal-ngal li ba mu jàng man man soxla naa ko te wala tubaab def na c'est moi c'est moi c'est moi c'est pas celui je réclame samay mais waa social yëpp jàpp nañ ne Aminata Aminata Mbengue Ndiaye celui yi moom la. gannaaw ñoom wax nañ ko ca ba ba ci góor gi si dégg naa ko léegi intervention nee na Aminata Mbengue Ndiaye moo leen doy tey moo leen doy ëllëg te kooku ci kàngami parti socialiste la bokk. may ñaan vraiment ñu ñu ñu ñu rafetal wax euh, doxalin ni ànd na nekk benn comme nañ nekk woon may ñaan nañ dimbali ñuy jàngal ñu ko rawat na daara kooku jëre ngeen jëf. jërëjëf Ibra Ndiaye Pikine ginnaaw ray ñu daal di jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98. salaamaaleykum allo. allo. salaamaaleykum. soose kooku yegsiwul ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. ah maa ngi wootee France waaye dama lépp tur bi nag. mbaa doo fi wax liñ la xeebee. déedéet déedéet waxtu yàlla. acca bisimilah. waaw. Mhm. allo. waaw maa ngi lay dégg waa waaw di tax may woote mooy. Mhm. émission bi man du ma raw tout le temps dama ko déglu bis bu set dama ko déglu waaye léeg-léeg ma dégg ci loo xam ne daal damay dem mujj ma bëgg a woote xamul tax ma bëgg a woote. Ah. dama dégg waa ji wax léegi euh, Fane ki nekk Fane. sëñ bi. waaw ki nekk Fane wax ne Sénégal yi nañu xool yi dafay ñu dund noonu doo ngi dund France comme li Aliou Diouf wax man am naa ñu dem tontonte andiwuñu fii kooku xalaatam la wax keneen am na xalaatam neen kàddu yi nga xamante ne yu bi biti réew di ko yëkkati ci réew yooyu dafa tiit ci yéen. wax ji ayut ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. maaleykum salaam. aha sëñ bi. waa ji Birama. waaw. kii El Hadj Xaaye Guèye la. El Hadj Xaaye waaw. maa ngi lay ziar. delloo ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñëpp ngi lay dem. di nuyu sama mbokk Kajoor Kajoor yi. Mhm. Daaru Guèye Sancu si nag njëriñ làkk Caaro Guèye géej géejawee. Eh, man dama indi mooy mbirum licence pes yi ñu doon eh, lëmbe ci fan yi mhm. eh, laa ci bëgg indi li ma ci xam. mbir mi nag nekk na ni li olof yi wax bu coow bare dëgg réer. parce que am na ñoo xam dañ ñu ay ay sénégalais lañ doon liggéey ci géej gi a ah, xëy xëy songu ministre de la pêche ñu ko da si signé ay licence de pêche a ah, man nag li ma ci xam ak néew te bari nañ ko ci xam waaye nag ñoom indi nañ coow lu rëy loo xamante ni ministre bi jëm na leeral mais man li ma ci xam laay wax nii te ku ko vérifié mënoo ko dindi moo que licence de pêche yi am ñoom ñii ko indi coow li moo waa Greenpeace ak ñu mel noonu nañ ko xool ay sénégalais bëgguma tudd tur am na koo xamante ni. di 17 licences de pêche moom bindal nañ ko ci société am 17 laa la wax de waxuma un waxuma deux 17 licences de pêche benn licence de pêche lañ fi jël boo xamante ne dañ ni ay chinois lañ ko jaay te licence de pêche boobu bu ñu ko publié woon ñu ngi koy ñaa ngi fekk FT2 T comme Thiam 2 te kooku xam nga ne mënoo génne Sénégal te xam nañ ko fii la nekk sénégalais yoroon jàng lan mooy jën ak géej ba yoroon licence am doon liggéey ci Sénégal xëy ubbi usine boppam nekk nag nag seen client xaj na. ah dugal ay dossier am depuis 2017 kon bu si ñëwee tey mun ko bañ si signé pour mu jàll. loolu nag bu ñu ko waxee ñoom loolu dafa naa man Sénégal warul sax def yenn ñi Sénégal waaye taxaw naa gaal gi fële dëkk ak nangam nangam man su ma neexee dawal oto to état su ma neexee dawal oto Hyundai mais Sénégalais la kon nañ bàyyi yenn yi te xam ne réew mi suñu réew la bàyyi ñu ni acharné man Alioune yi xamuma ko. mais xam naa liggéeykat la ku gëm boppam la kon nañ yooyu ñuy def nañ ko teg fële ci suuf te bàyyi accusation yi ñu ministre bi te ñëpp ñun ñëpp liggéey Sénégal te xam ni géej gi koom-koom la bu ñëpp moom ñëpp bokk président nag def na li ko war a wax wàññi ne matériel gaal yi wàññi ne essence bi yombal na leen silo yi wasalaam. jërëjëf El Hadj Xaaya ñu daal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum sëñ bi fayal rajo bi wala ñu jàll ci keneen salaamaaleykum allo soose ñu daal ji jàll ci keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Ibrahima waaw waaw ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. Maram Faye la di wootee Colobane. Maram waxal ñi sa ginnaaw ne yaa mujj. waaw kon gars yi mën ngeen a tekki ba leen de jàmm incha allah. wala vingt et une heures vingt et une heures waaw. jërëjëf di nuyu euh, auditeurs yu Sud euh, FM yëpp. Mhm. di nuyu Aliou Diouf ak Diop Italie ñoom ñëpp. bon Birama. Mhm, Maram. Euh, xam nga réew mi lan moo tax. boo gisee coronavirus bi balaa la bu fi yàlla wàcce bon li koy indi. mooy liy xew ci réew mi ñaawteef yi xew ci réew mi yaa ngi dégg fan yi ñuy wax boroom ñaar tur yi débat boobu ñu ngeen di woon démb te kenn du ci wax euh, te jàpp naa ne euh, musiba bu rëy noonu nga xam ne comme ni ko sama mbokk mu waxee démb Aliou Diouf euh, yonent yàlla loot nitam ña yàlla daf leen alak mu te loolu li ko woon ngóor jigéen lii xew ci réew mi tey mi ngi fi ne mi ngi fi am pagaay kenn mënu la wax léegi xale yu góor yi léegi maanaam jëf yu ñaaw yi nga xam moom lañ jëf internet bi ku ne ay sénégalais ñu ngi ci àddina bi ku ne bitim réew lu ne la ñuy def bépp ay ñaaw teef te kenn du ci wax. ci kër yi lañ jóge de. waa ci kër yi lañ jóge bien sûr. gouvernement bi tam jàppalewu ci maanaam nit ñi parce que boo fi laaloon dégg naa sax ku wax de ne. kuñ ci gis nañ la rey xaw ma lan mais boo ci laaloon benn benn borom ñaatur léegi léegi yow yaay dem yow yaay dem cent mètres parce que ñoom la ñu gën a privilégié kenn yow parce que ñoom euh, depuis premier ministre canadien boobu ñëwee waaw bi premier ministre canadien boobu ñëwee. Mhm. dégg nga Macky Sall la mu ca wax nee na ñu leen bàyyi ñu def li ñu bëgg a def mais kenn du leen laal mais buñ ko wan a daal nañ ko nëbb dégg ko loolu la wax. Eh, léegi tey gis nga lii xew tam ci Afrique ñi ñuy rey xale yu ndaw yi ay innocent yoo xam xamuñu dara dara ñu leen di jàpp ci ay nguur kese kese tax ñu leen di rey te kenn di wax loolu moo waral yàlla wàcce fi nag feebar boo xam ne kenn mënu ci dara. Mm-hmm. jërëjëf. Euh, Maram fay ca Colobane ñu daal di ko jaajëfal ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu jotu a dugg ñoo ngi leen di jox di daje bu juróom-ñeenti waxtu jotee sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alioune Badara Socé mi féete woon ci xarala gi lu yees ñaari simili Aïssatou Gueye ba ñoo yéen ci xibaar yi ci français lay doon. Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur di fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat